commencé ci chef de village di nuyu imam di nuyu maire de la commune de Dieulaba muy suñu papa Talla Diagne ak ñi mu àndal ñëpp ñu mën ci wax suñu papa Mori Gueye tonton ak suñu grand Gora Diagne ak ñeneen ñu ñu àndal di nuyu tamit waa dëkk bi ñëpp ñu nga ni teew nañ di kontaan vraiment ci li ñu parce que tamit état bi ñëpp xam nañu temps jafe na toog euh, bu ñu wootee ñëpp tag seen i itte ñëw donc loolu amuñu seen fay dañ leen ci remercier di leen jaajëfal di jaajëfal waa ñëpp vraiment. di ñëw ci programme bi woowee ay nit yu toll ay kilifa yu ñu andi leen déplacé leen fii téye leen fi waxtu bi yëpp. jaaru na ñëpp ñoo xamante ni ñoo ngi teew fii ñu xamal leen lan moo tax ñu woo leen parce que tamit ASC bokku jom bu jaayam moom moo organisé bii di ci remercier monsieur le maire ci jàppale bu nga xamante ni taxawu na ko côté bu nga xamante ni féete na fa ASC bi loolu moo waral lii ñu organisé ko tey pour jaajëfal ko di ko wax ñu doomu dëkk yëpp vraiment amuñu fayam kontaan nañ ci et eh, ñoo ngi koy ñaanal parce que man en ce qui me concerne man yaakaar naa plus de trois ans yi man maa nekk le secrétaire général de l'ASC Bokk Ndiaye Ndiaye donc bëri na yu nga xamante ni man xam naa ko ci le bu nga xamante ni moom ñu koy jàppale bien vrai que nag doomu dëkk bi yëpp ñoo ngi leen di remercier kenn amul seen fay ndax chaque fois nawet daal su commencé ñun ñooy boole suñu ay dëm suñu ay taxaar ñii andi cinq mille francs ñii andi dix ñii andi seen ay oto ñii andi seen xam-xam ñii andi seen mën-mën ñëpp ñu boole ko pour jaayeen am ndam te yaakaar naa tamit gisul résultat bi loolu kenn amul seen fay kon dañ ciy remercier doomu dëkk bi yëpp waaye nag gars olof dañuy wax ni euh, tàgge boo gis am na jàppal bi parce que maire muy maire ba ci góor ba ñu ko balaa muy parce que góor mi jaar na tamit ñëpp taxawee ñu wax ko góor bëri na lu nga xamante ni suñu bët day xonq maanaam ASC bi te ku wax nawetaan xam ni bëri na ay mbir yu am ci biir muy côté ay sanction parce que nawetaan dafa métti côté social bi dafa métti xaalis bu bëri la des fois ak ku njaboote tamit ak ñun waa Ndiayène suñ tempérament des fois dañuy habité suñ doole ba yenn kii dañ leen xaw a jaay doole ñu leen néewal doole te dañuy bëri ay ñu xamante day am ay sanction te sanction yi day métti tellement que dina fekk ñu yor dara suñu lay poos moom mii la ñuy ñëw suivre ko mu génn lu mu yor ñu am fay ñu kon wax suñu activité te kenn du ko xam donc góor loolu mënuñu koo fekk loolu ñoo ciy jaajëfal bu ñu ñëwee ci maire tamit bu ñu bu ñu ñëwee ci maire yaakaar naa wax naa ko sànq may commencé ma ni man ma xam ba ma nekkee secrétaire général ak léegi mat na trois ans wala mu ko. te jiitu na lool ba may nekk di football nekk joueur di football nawetaan ànd naa ak suñu ay dirigeant ànd ak joueur ba tay ñu dem fekk ko këram mu génn ay enveloppe ay enveloppe de cent cinquante mille borom ay jeu jox ñu ko amul ci depuis ñu commencé ba léegi rek amul ci benn année boo xamante ni dina jàll fii muy trois ans yi nii amul benn benn année boo xamante ni commencé na nawetaan ba génn te leen ñàkkantu ASC bi lu ëpp deux cent mille francs amul donc kooku jaadu na bu mbooloo mi taxawee tamit ñu wax ko parce que nit ki tamit bu la dee defal lu baax chaque fois bu koy def jaanu na bu ñëpp taxawee nga xamal ko ñëpp vraiment kontaan nañ ci loolu amuñu fayam parce que bu fekkoon ñun kese la suñu ak doole mënuñu ko ndax wax naa ko fii ñun dañuy dajale rek suñu ay 10 suñu ay 5 te loolu jëru nawetaan nawetaan dafa metti te li ngay daw sax daanaka doo ko ci am donc maire amuñu sa fay. yow lay jaajëfal yow lay ñaanal li nga bëgg yaa ko xam yàlla na jàppale ak équipe bi nga bokkal yëpp. bu ñu ñëwee ci tamit suñu tonton Serigne Sarr bi vraiment moom dama naan moom mention spéciale à parce que tamit mënoon na wax bien vrai que doomu dëkk bi la ñun ñëpp xam nañ ni jaayaan la dëkk ndax fii mooy cosaanam mais bu ko neexoon tamit muy dëkk ndax njiit la dëkk tamit bu ko neexoon mu féete foofu lu muy def ci social mu féetale ko foofu. mais moom tam bokk na ci ñi nga xamante ni à chaque fois suñ ko saisiree ci ASN mu génne dooleem barki dem boo jaay organiser fii benn genre final buñ fi def te moom mii moom moo nekkoon pare ba terrain nga yu fi yaakaar naa néew na ñu fubal fi nawetaan la wax te loolu ab final kese la dañ ko organiser rek néew na ñu fubal fi nawetaan ba nawetaan yi àgg ñu jël bi am ci lu ko loolu ci ay récompense te moom mii moo ko def donc loolu tamit jaadu la bu ñëpp taxawee vraiment ñu remercier ko di ko seeral aussi tamit ay doomam muy Ibrahima muy Mourou aussi tamit ñoom bañ nañ ko ba ASC bu nga xamante ni nekkul doomu jaay bokkoo ci groupe bi ci ñoom ñaar laa xam ñoom ñoo si nekk ñoo xamante ni yeewu jaay muy Mourou Sarr ak Ibrahima Sarr te loolu léegi ko may nekkul ni ay ñaama neex la parce que bii mérite la dañ ko mérité moo tax ñu intégré leen ci biir groupe di la seedeel tamit bu mbooloo mi taxawee ñu wax ko Ibrahima Sarr bu wér nit yaakaar naa andi nañ fii ay mercenaires yoo xamante ni nit ñi ci ñel ñi kenn xamu leen moom moo leen xam def ay démarches fexe ba ñu gis ne ñu andi leen fii ñu fubal bokk na ci ñi nga xamante ni tamit ñoo gën a baax ci ASC bi ñoom ñoo leen te bu leen neexoon ñu ne topp ñu fi ñii danañ dem donc jaadu na boo teewee ñu seedeel loolu vraiment kontaan naa loolu moom moom bu ko defee nag dañuy dugg ci programme rek bëgguñu yaakaar naa bëri na ñoo xamante ni ñoom amee nañ ci ay borom léegi programme bi tamit dañ koy tërale nii parce tamit sargal lañ wax maire tamit ànd na ay nitam bëgg nañ kenn ku nekk aussi tamit ñu accordé leen benn temps de parole bu ci ci commencement am nañ fa comme day yëg comme comme parole moom tam mu bokk ci dirigeant ASN bu pare suñu tonton Ibra Gueye ñu gën waxam ci Ibra Dure mu ñu paree aussi tamit am nañ fa soxna Binta Sall suñu baay Mori Gueye moom moo ci topp suñu tonton Serigne Sarr moom moo ci topp suñu grand Gora Diagne moom moo ci topp ak le président de l'ASC Bokk Jëmbe Diagne mu Djibi Gueye bu ñu paree ci kàddu bi maire moom moo koy teg donc programme bi noonu lañ ko tëralee ñaan ñu commencé ko bisimilah jeexal ko ci alhamdulilah te ñu xam ni nag. weer amuñu fayam luñ ko sant ak luñ ko remercier ak luñ mënti tollu tollu dañu def li nga xamante ni foofu la suñu doole yam mais bu fekkoon li nekk suñu xel ak suñu ay xalaat ak suñu bëgg-bëgg doole bi moo ngi fi kon doon la ëpp nii doon la gën a taaru nii et doon gën a moderne nii ñu xam ni vraiment kontaan nañ ci moom ñu yemale foofu kàddu yi salaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi nuyu yéen ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax di rafetlu tamit seen teewaay fii ndax vraiment mën nañu lu luyee matériel bi luyee chaise yi luyee base bi te mënuñoo luyee nit nit kenn mënu ko luyee ngeen bàyyi seen lépp perte seen temps ñëw jàppale ñu sargal bi ñuy sargal suñu papa lañ sargal kon damaa sama kàddu muy jóg ndax sama kàddu day riir damaa bëgg yéen waa dëkk dëkk ngeen tàccu ma alaaji Talla Diagne bu baax a baax a baax bu ma jógee di alaaj Taala Jàng damaa bëgg ngeen sargalal ma bàyyi Serigne Sarr ñu tàcc ma ko bu baax baax baax waaw ñaar yooyu rek bu ma leen waxee yóbbaale naa fi Baye Mori Gueye naa fi tamit sama nijaay Gora Diagne ndax tey jii moo ma ko doon wax waaw Gora Diagne moom itam wax naa ma nit kenn lekk kenn du ko naan njëriñ kese lañ koy doyee wax loolu jërëjëf kàddu googu nag dama ko jël garde ba sama biir xol di ko doxee xam ni man jaar dëggu ma fi judoo ma fi yaroo fi màggewu fi waaye maa fiy jëf lu xamante nii bët moo koy jëf làmmiñ moo koy wax man noon laay doxee benn am ay principe xam ni may doxee xam na may jëfee ndax tey su ma nekkee jaayant yi ñu jël ma am lu ma jiital muy booy yi di fubal nawetaan di jeunesse bi yéen boo leen fii jëf jëf xamante nii man yëg naa ko sama biir xol man su ma leen defal lu mel nii rek lu ma gor ndax yee naa leen guddi yee naa leen bëccëg sonal naa leen façon sonal bu ne te mosumaa ñëw ngeen wat ma kanam bu xamante nii day daw sama yaram heure bu ma dikkee seen i bëñ laay dikkee gis ak seen tranga ak sama jëmu ji kon man su ma leen sargalu rek du ma gor ba yàlla dimbalee nag ci président bi ànd ci ak ñun jaan jëpp ànd ci ak ñun ñu leen taxaw sargal Alaaji Taala Jaay te bis bi biñ ko jàppee yàgg sam ni nañ ñëw waxtaan ak moom alxamis ñoo def ko te loolu waajuru ñu yàlla def ñu lépp nekk fi ndax tey àdduna boo fi nekkee Mor Diagne jaar na fi lu ma fi jaaral am lu la amal njëriñ te lu si boole wax boo dee góor da ngaa war a fonk loolu day sa tànk te ñun danoo war a béy bu baax a baax a baax a baax si ku xamante ni heure bu tey rongañ di dal mu ñëw naxtal la tàggatal la ba li war yow lépp mu def ko ni la demal tëru si boole wax kon bàyyi taal ji man muy góor a jaan mii waa dëkk bi yéen laa muy góor a jaan mii toog di bàyyi taal a jaan mii toog kenn mësu fee xam sama soxla 1000 francs wa rabbul kaabati musarraf laay wax ak ak noddu gi kenn mësu fee xam sama soxla 1000 francs waaye IP bii ñu ma jiital teg li ma jël si ñoom ëpp na six ay quelques mille ci seen xaalis mooy jël ko defaat ko di senet bi kon kooku wër na koo sargal ñu maanaam dama bëgg tey ñu waxtaan ci xel ndax wax kenn du ko lekk wax da koy teewlu ndax li Mor Diagne wax añ nan nu ODCAV jóg jël xaalisam bi nu ko lebal Gora Diagne jël alalam fay ko kan moo la ko defal am nañ fi ay jafe-jafe yu xamante nii kenn fekkunu fa alaaji taala jaay mi moo bàyyi ay réunion bàyyi ay yitteem ñëw fekkunu fa bàyyi moo liggéey teew fa mu yëkkati propre moyen fajal na ko kan moo la ko defal kon fii ñu kenn ko jàpp ñu gën dëgër maanaam nit bu fekkee ñun rek ñun ñun ay nit la te yor suñu esprit di xalaat yor suñuy xel maanaam ñun dañ leen war a mooy mel ni si ñoom ciment rapide jëfee jëf yu xamante ni képp ku koy gis di nga xam ne ñii nii ñoo ngi way seen waar te nan ko war a bayee ndax ku mel ni Gora Diagne mii tey moom laa njëkk ñëw toog waxtaan ak moom ci lii ñu nag nii mu génn fi idéem génn fi lim fi nam ñu kontaan ma jël fi oto dem ba njiite fekk fa bàyyi seen saar nii ñu waxtaan ak moom mu am lu ma wax ci maire moom bu jëlee kàddu dina fi am lu ma waxaat ci Gora Diagne mii ñoom bu jëlee problème dina ci yëg kon ñun damaa bëgg ñun ñu ñaanal suñu baay Talla Diagne mii yàlla wéral ay fanam guddal aw fanam wéral ay cëram ba leen bëgg lépp ci carrière am suñu borom motali ko ndax fi may wax ak nii tabat la fi toogee tabat la fi toogee fi may wax ak yéen nii waaye bëgg dim bëgg jaayaat. ak naw gi naw jaar ak fonk gi fonk jaar moo tax mu bàyyi ay itam ñëw toog di mënu woon a rek pour ñu génn ko ndax mu yàgg lool waaw ndax te lii moom lii moom lii rek nga ko war a mën a defal waaye li ma koy tëjee lu gàtt kese muy ñun waa jaar ñun waa jaar bii ñu nekk ak keneen fu dul jaar tamit nañ jéem a man dama bis bu ñu sàgganee ba ñàkk bàyyi Talla Diagne bi làmb bi ñu fi burle doo gis ku mel ni Gora Diagne kuy dox ci naaj wi tàng jër dawal otoom bi xool nu làmb bi baatee. waaw rek laa ubbi ba ma nekkee jaar ba léegi di xool man man lu ma amalul njariñ boobu lu ma aman njariñ ci laa jox dama ni leen bis bu ñu waxee ba sàggane Alaaji Taala Jaaj lamp dina fi burle duñ gis ku mel ni Goré Diagne buy taal gàtt gàtt ñu dox maa ñu tàng te dina def waaye lan ñaanal ñii yàlla jàppale leen waay. wax yaa ma ko wax naa ma nga jiitu ñu lay sànni xeer moo gën ma nekk sa ginnaaw di sànni xeer kon yéen la yàlla jiital foo leen jaar di jël xeer yi nag di jégal. élection yi mu mujj yàlla ko yàlla may jàpp yàgg na maa ngi moom nag ndax ay doomam laa seqal mu Ibra ak Moussine ak Ngañ Daawul guddi bëccëg suba mu rafet lool waaw maire moom dama koy ñaanal xam na sama xol ci moom may xam naa xolom ci moom bu loolu paasee ma ciy teg góora góora yàlla na ko yàlla defal jàmm ah li wax mooy dëgg bu ñu demoon ba ñàkk meer nii làmp dina fi yàqu kenn ko kon nag yàlla na leen yàlla defal jàmm di si teg suñu grand muur bi nii di sagu waa ngéyén nag muuri lewet na lewet boo xam ni ah bu sañoon ñépp am jàmm te fu waa ngéyén nekk seen xel nekk ci muur sama bàyyi dama daan wax naa muuri lu wax dëgg li ma gën a neex nag ci programme bi mooy Serigne Sarr mii nga xam ni mooy doomi dëkk ngeen war boole ko Serigne bu bu ci amoon problème tëdd ba xaaja guddi nga woo ko barke Serigne Babacar mu fekk ndax xam naa xolam kon nag lii yàlla na ci yàlla def jàmm ah maire moom ah dañuy ñaan rek ndax xam nañ yéeneen ci dëkk bi te ñu koy doxal kon nag dañ koy bàyyi ak yàlla loolu laa amoon ci lu may Amour, il est sur le waaye yow am na loo ci bëgg kàlla baax na la ba li ñu waxoon ne dugub bi nga nii maa ngi koy ànd di fi ba Kouridi fi ba Dakar fu ne dem naa faa waaye bu ma ànd de askan wi ñëwee na ba jaayaam sant jaay lii rek lay taw ma woo leen wax leen ko ngir xaw a dëgër ma wooyee am dara leen ko ngir xaw a dëgër nii la nii yoon da ngeen gën a la wax gis nga daal la nii bu tegee am na ko bu mënu ko tegoo rek ko la maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant xale yi ñuy organisé bi tey ñëpp a ci kontaan tey dañuy sargal Talla ñëpp kontaan xol yu bëri may damay sargal monsieur le maire ak Gora Diagne ak Modou Diop sama sargal mbokk laa wax de ndax monsieur le maire nii noo bokk ndey bokkul lépp xaw ma naa noonu ko mas la waaye naa ko mas la mu def ci man lu rëy ci jaay mënu ma koo am ci mbokk mënu ma koo am ci sama njaboot mu defal ko mënu ma koo dana ko baax ca kaw li nga ma defal ci jaayam dafa wéy àndal àndal ma waxoon nag fii ci péncu jaayam dinaa ko waxaat dama koy teg ndax la ma moom dañu dem ba ah na ko ni daa Koungheul ñaar daa taxaw jaayaan ne ku sax jaayaan lekk nga saabu ceebu monsieur le maire dama leen di bari na ci jaayaan ñu koy sànnee xeer lekk nañu saabu ceebam te du lii maa ko wax fii dinaa ko waxaat tey sama rakk feebar ma dem di may ma ma ndax ñaan trop pour sama kàddu bopp monsieur le maire sama rakk ma ñëw gis la ko. boo leen jaayee ma ne ko boo leen jaayee xaalis bi ñuy laaj sama ci bëri na te xaw ma fu ma ko ku ci sama njaboot ku ci mbokk mi jëndoon ko ci boo leen jaayee sama mère boo leen jaayee jàpp dina doon suñu bëri leer moo ko fi man moo ko am xoolal ma wax ndànk ñu. waaye may leen di tuuti waay may leen di tuuti waay li may wax damaa ñor li may wax damaa ñor ma fekk la sa néeg mu nuyoo ma gis la ko ñu la dugal ci sa loxo sama rab bi feebar na jaaxle naa. man ma ma mën dinaa ko ci def lii dugg sama loxo la mën naa am moo jëndal ko garab ma koy bu dul woon nag yow nag dinaa andi café wala bu reppee dee ngir yàlla ak yow ak a jaay góor a jaay heure boo ko yónnee man rek ni nga ko xar téléphone ko ñi ko defee ngi hôpital 30 minutes a jaay ko parce que yéen bi am na ah, affaire yi mujjee def ma agsi ni ma sax bi kenn ko opéré ma ne ko ah ñu ne bi defoo ko ma ne xaaral ma defoo ko. ku ma woon nga ko jaay mu woo la dara ko yebal wala non ku ma xoolee man ko maa ngi jëm tool daal ñu ma xaar ma boo jaay man la diggante bi daw ko lu mat 40 minutes daw ko ko fekk ma teer jëndal ma ordonnance nga jënd ko mbuus ba mu fees ñu opéré sama rak sama njaboot loolu lii nga jiital sa kanam ak yow lii ko jiital te leeral bu def seen fan te lii may wax nag damaa ne sama xol laa ko tibb parce que yonent bi li bëgg ci Sénégal bi lan la ko yàlla defal te nun nag dañ la téye suñu fukki loxo pour xool na la gis nga lii par force la lii nga tàggat bii par la nee ñu lamp yi bala ñoo am xalaat bi a bala koo xam nga ñu nan dem ca Rabat lijjanti kayit ba ñu nee kayit yi ñu ne dañ bi ñuy bëgg a waxee yi nag dafa tànn moom yóbbu lépp ku soxla kayit yooyu nga yóbbu la loo egg ci bureau bi fekk ba ay nit ñu rang rang rang rang Ibra waaxu du wàcce nit ñu wàcc jullit yi bi teew yëpp ñoo ngi yëkkati suñu kàddu ci turu Baye Serigne Diayane mi nga xam ni moom la yàlla dogal muy kilifa bi leen nuyu itam. ci turu bi ñu àndal te monsieur le maire jiite ko di ci teg adjoint monsieur Gora Diagne troisième adjoint au maire di ci teg itam suñu invité bi nga xam ni mooy lépp jaayante ñu wax wax ko léegi muy Serigne Sarr ak délégation bi mu àndal ñépp jóge njiite ñoo ngi leen di nuyu di nuyu mboolem waa dëkk bi muy kilifa yu góor yi toog ak njaboot bi jigéen bi fi nekk yépp ñoo ngi leen di nuyu di nuyu président groupement yi nga xam ni ñoo fi teew yépp ak seen njaboot di ñaari quartier yi nga xam ni moo composé jaayal kenn manqué yi gis nañu ñëpp di nuyu itam xale yi nga xam ne ñoo initié lii muy ASC bokk jom bu jaayaan te gay bi wax ci seen tur léegi li mu wax daanaka doy na sëkk ñoo ngi leen di nuyu leen ñaanal yàlla di leen sant bu baax ci turu ñooñu ma fi tudd muy Baye Serigne ndax kilifa lu mu am lu may njabootam bu nekk ci jàmm amul la ko gën te lii ngeen di nekk bennoo jàppoo lu ngeen yaakaar ni muy defar jaayan li ngeen yëngu ci kon mu ngi leen di sant bu baax di leen ñaanal yàlla ndax ki wax léegi ni Binta Sall li wax léegi képp koo gis muy dem di yëngu ak lu mënti yëngu dafay am relève kon yàlla na fekk ka koy war a wuutu tegu fa mu war a teg tànkam ba bis bu nga xamee ni kam war a dem na ba mënatul mu xam fa muy teg tànkam kon ñoo ngi leen di nuyu di leen sant comme ni ko ñëpp waxee nag bu mu àndee ak monsieur le maire ñëw ñu ni dañ koy sargal loola sunu mbégte lay doon ndax bu ñu yàlla boole ak moom léegi ça fait douze ans presque mu ànd di yëngu mu jiite lu ci commune u Thiénaba kon bu ngeen yëgee lu mu leen defal ba di ko sant ñun ñi ànd ak moom mbégte lay doon ci moom ak cant ndax bari na ci lu ñu xam kon mbokk bi ngeen ko xamee te tudd ko kon nu ngi ànd ak yéen. di ko sant di ko ñaanal yàlla di ko gërëm ndax nag Ibrahima Gueye suñu doom bi yàlla dogal mu génn àdduna daana koy wax daana waxtaan ba yàgg mu ne ah amul meer ni moo gën at bi am meer kon bu yàlla dogalee jaayaan commune Thiénaba di fanweeri dëkk ak juróom-ñett ak ñaar fukki amoo ak benn yàlla mi mu somb foog ko teg ko ci kanam mu jiite ko ma man leen a seedeel bi 1989 ñuy nekk conseil municipal ba fii ñuy wax ak yéen ku fi jaar ak loo fi jaare ak loo fi def xam nanu ko waaye mbooleem ñi fi jaar kenn ku nekk xëy na amat nga yéene wala bëgg ngaa defar waaye nag li yàlla dogal mu réaliser ko ci commune bii jëf ko ci même bu réaliser woon benn infrastructure li muy jëf ci wàllu social bi ko jëf ci doomu aadama yi doy na te defe naa ñiy wax léegi muy Koumba Nianga ak Malick Ndiaye ak ñeneen ñi mënoon wax te waxuñu te boo génnoon tey jaayaan ci commune bi dëkk boo dem am na fa koo xam ne am na lu seq ak mu defal ko ko ci wàllu social ak ndimbal ci wàllu infrastructure nag li mu ci def moom moo leen koo wax fii moom bu jëlee kàddu wala góor dina leen ko wax waaye jaayaan ji ñu yeewoo li ma xam mu jëf ko fi def ko fi ah ku yéen sa ndax dama daan dégg wax kat yi naa xippi xool ni fii ma fi def waaye defe naa jaayaan ji itam ku xippi xool sa bi mu fi toog ak li mu fi jëf. bu wàllu social ci wàllu infrastructure ku xam kuuba buñ la ko waxan tey nga weddi ko ndax man mi waxee lii ci bari def naa calcul bi ci lim fi investir ci jaayaan boo ko doon seet ak lim fi andi ci ay procès ça coûte cent lu dugg ci jaayaan bi ci grâce à monsieur kon bu ñu toogee léeg-léeg jamono yëngu ñu naa luñ fi def dëgg ci dara ak xëy na kooku xalaatam toll wala gis-gisam waaye limata mat a ñaan mooy ñaanal ko yàlla doon ni ko jàppale doon ni ko wér musal ko ci ndog ndax nag am ko te xamoo ko ñàkk ko te xam ko sama ko gën te ñu wax léegi wax nañ ko góor a jaañ ak chien au di jarbaat di rak taxawaay bi mu am ci commune bi ñun toujours dañ koy rek te bu ñu nekkee ci conseil bi wala buñ man ci ne bërki bi ñuy def conseil mbooleem conseil bu fa nekk boo jëlee parole beral nga góor ak tem ngir taxawaayam kon moom it nu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla gën a dëgëral nan ko bu baax bu ko defee ki may mujjee nag ci cant bi mooy kii sama wet muy sëriñ sëriñ li ñëpp wax rek loolu moo am da ngay doomi te nangu ko nag waaye mën naa ne da ngay réew mi ndax ku xam li ngay jànkoonteel ci wàllu fee yàlla dogal na di fa xëy di fa liggéey ku xam la nga fay jàppale ci ay doomu aadama di leen dimbali di leen bëgg bëgg loola rek doyal na lépp rawatina dëkk bi ñu ko xale yi waxee lu fi xew yaa fi jiitu yaa fi mujj koo def sa alal démb rek biñ dajee kër laa lay masawu may la ah, sonn nga di gàmm jaataan gi ni li nga ci daj bari nañu sant pour nga sax kon sëriñ na la wóor ni ñëpp sant na man day man à personnel day sant naa la ndax sama waruwaay wee ma yor saa yu ma demee ba am benn problème mu pièce fii laay toog téléphone ko ni ko sëriñ dama manqué naa nga ko mu lijjanti ko ba mu fa mu war a tege yónnee ma ko te boo yëkkatee ko ma jox la dara muy ma ba ma fekkee ca bureau may am ku may discuter daf koo daal nangu dossier ba ko kii sama dossier la maa ngi fa mu jaar ak man sax bu ma ko waxee fii dañuy defee la gërëm nañ la rawatina nag bis bii xale yi wax la ko nga déranger ànd ak nga ànd ak ñëw loolu lu rëy ci la ñu lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal yàlla xale yi yéen laay mujjee. lii ngeen def rafet na baax na ñépp kontaan na bi ñëwee di ma wax bis bi dama leen ni sargal de baax na waaye nag am na loo xam ni nit bu leen yàlla boolee am cër yu ko yàlla jox saa yu taxawaay jotee te cër boobee la koy dimbali mooy nga ànd ak moom te loola jàppale ko ci sa tam loola mooy taxawaay bi gën ndax itam nag boo ko defalul ki nga dëkkal itam defal ko jàmm kon mu ngi leen bi gën a jaaj ci loolu lii ngeen di rafet nañu ko baax nañu waaye saa yu ñu jekkeetee ba taxawaay jot fépp fu monsieur le maire joxoñ da ngeen koy dimbale ngeen ànd moom jàppale ko ca loolu loolu mooy ndénkaane bi ma leen di dénk fi ci des mooy ngeen gën a nekk ci wàllu discipline wàllu discipline ndaw lu mu am lu muy discipline dañ ko ci ndax muy man muy maire muy keneen képp ku ci dem ba am problème ba nekkoo ci jàmm boobu nu am jàmm nu am salaam kon la muy dimbalee mooy wàllu discipline rawati nag yi ngeen nekk muy wàllu koom yi ngeen di def saa yu ewee nun sunu lekki yi nekk te sunu bopp yi ndax xët yi ci am ak problème yi ci am te yooyu mën na ñàkk ngeen di ko invité di ko mooy lu ngeen man nit ki bu xasee ba woote moo xam da woote fi nga dëkk wala nga feneen da nga war a nekk exemple yu bari ku la sax yow bu ko wuyu da xam ni kooka yaa ko war a ko war a tane yaa ko war a teg ci yoon ndax doomu jaayaan lu manti mel rek comme dem bu xamee boppam war a am comportement bu ndax dégg naa ci dëkk yi nu wër sax léeg-léeg ñu naa dëkk sàngam jaayaan mais loolu dégg bi sax daal jëkk ñaaw kon ngeen di gën a góorgóorlu bu baax ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp góor man de sant naa la di la ñëpp sant ndax góor yàlla danoo boole nuy ànd di dem maire am cër yu ma monsieur le maire dénk mën naa cër gi gën doy waar ci wàllu commune bi mu yëkkati ko dénk ma mais taxawaay bu mu ci góoray taxaw daanaka la ca ëpp juróom fukki ñett yëpp góoraa koy def ñëw ma compte bu dee sag daf caa amul ma sag kon Gora maa sant bu baax di gërëm beneen bi des muy commission beneen bi ñu bokk muy commission de marché ah loolu moom damaa la dana bàyyi waaye damay forosé wax ko yéen jigéen ñi am na sëriñ bu leen neex am na ñu ko waxan fii am na sëriñ boo xam ne da ngeen toog tey xaar yàggatul mu ñëw bu ko defee rek loolu laa doon muy benn ku fukki million ak juróom-benn yu tegal. maa góor a jaay ñi ñoo fee kuyee marché bi te yàlla ak jigéen ñi jaay ñoo ko moom te mi ngi ci woon di ñëw wa wa rahmatullahi wa barakaatu am na nag xale yi lu ma monsieur le maire jox ah enveloppe bu diis la mi ngi ci dama ko noonu dama koy tudd mu ne ma ëpp naa tudd. jërëjëf bu ko defee góor ji bu ko defee nga jege ma dama noon meer sax loo xam ne ëpp naa kii mu ne ma ëpp naa am na loo xam ne defe naa bu ngeen fi ngeen ci fay seeni seet liggéey bi seen bopp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu ñu nag mbaale après final bi jàllee Ibrahima Diagne Djibi ak euh, Diop bi ñu jógee fii 23h jot na ñu ni nan dem jiite seen Ibrahima Sarr ak papaam parce que dañoo am problème machinaire man leen leen dem keneen mi ñu jógee këram une heure du matin jot na doon ko fekk muy bëgg a tënk léegi bi ñu wax ak moom dañuy dem leen ci Ibrahima Sarr lu mu ci man dina ko jàpp ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni mënuñu ko pour koy wax sax dañu yaakaar ne sax du dëkk kii jëmu ju baax. amul kenn koo waxee ni yaa ngi dëkk bii ngay dawal transport te loxoom loolu man mën naa koo seet ndax dama ko daan fekk service bi fan daan nekk daan yóbbu ay yóbbante Ibrahima Sarr nag moom dañ koy ñaanal yàlla suñu borom parce que dañ ni nit moom boo koy loolu dong lan man beneen bi ci des mooy Ibrahima Sarr amul benn marchinaire bu ñëw fii ñun suñu xaalis dem dem ci marchinaire yi déedéet moom mooy financé lépp ak yeneen yoo xëy ni ñu ngi ci àll bi bari ci démb doomu Moussa ba ñuy déggal mun na am a jox naa ko seen mu ci te max bu am na ngeen wax kon loolu jàll ñun ñu sant wax ko parce que doomu dëkk bi la samay doom samay njaboot amul lenn loo xëy ni dañ leen nekk ci tund jaan wala lu dëkk jaan wala lu bokk jaan ñu koy def bu ngeen ko ko waxul ñun ay jaxaata nag mais dafa jël danoo jël yamale na comme ay doomam bari na lu muy defal loo kenn sax lu ko defal doomam kon kooku jar naa sant ñu ngi leen ñaanal yàlla baax lépp loo man rek bu déwénee yàlla ko man Ibrahima jërëjëf fi nga teg sa tànk fi la gis naa ni ngay doxee ci dëkk bi gis naa ni ngay dimbalee ci dëkk bi ñu ngi lay ñaanal yàlla baax ko ñu mel ni Papa Dada Mboy ak Papa Yido ak Papa Mori Gueye ak Papa Kémé ah di leen nuyoo bi ak cant gi tamit a abonnement bi yëpp di ko la ñu doon dégg a waxoon a waxee ba a ngi que jaar na ko ci du ko maasalee. barke sëñ Touba Mbacke sama papa tey jii ko ko bëgg a rey man ngay jëkk a rey parce que jar na ngeen taxaw alxuraan moom moo waxaw xadaa rabbuka an laa ta'budu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaana fii da nga jël da nga fes responsable ñëpp ci ñun engagé wu nekk waa mu sëñ mu doom dellu ginnaaw tey engagement bu mën a jël ci ak njabootam maa ngi lay alxuraan sàmm li yàlla wax sàmm ak njabootam kooku moom féet na yan ak njabootam dimbali na leen teg na leen yoon siraatal mustaqim yaa na ko suñu borom taxaw ca maa ngi génn ci Serigne Touba foofu benn bëgg-bëgg bu topp ko wallahi gisuñu fenn ci alxuraan fu yàlla ñu topp leen kenn ku dul waajur di leen xamal ne nag ñu ngi leen sant ñëw leen di gërëm jaayeen da duñu dul góor a def ko war a def ndax kon wax sóor naa ne ñu bari xam nañ ko ba ma koy raxasal dama jël engagement daal jël oto bi ci bi daal di bëkkee jël samay vingt mille francs defar mu yoo ne ma rek dama laa mere man pourquoi ma wóorul yàq sama ni si nii yenn enjabootam fii ci digg jaayat nit ki nag boo ko mën a sant comme nag alxuraan rek hal jazaa'ul ihsaan ñoo ngi koy bàyyi yàlla mi nga xam ne moom a ah, man na lépp wax dëgg yàlla du woon yoon ñuy jël kàddu mais xol bu sedd ak ñaan la xol bu tàng itam mi ngi noonu papa daal bu demoon papa yëpp itam ñu jëlaat suñu papa rek parce que yar nañu yërëm nañu engagement yëpp jël na ko ñun amul ñu manqué amul leneen lu ñu jël amul lu ñu def ci kër xamante ne si danoo sob waaye boot nañu dimbali nañu yar nañu barke Serigne Touba Mbacke yàlla laa ko seereer boo ma ko nag alal ko pour yéen ñi toog ma leen dégg yéen ñëpp na ngeen topp waajur lu ay jaaxal amul benn sëriñ boo dem jébul mu mën laa wax dara ne da ngeen àjjana amul ko ko xam rek ma ko wax alxuraan da yàlla jibee di topp leen waajur li may wax du samay wax ñu ngi téere demen ngeen wëri ko topp leen waajur mag nga jox ko cër képp kuy rakk nga yërëm ko ñoo ngi jégalu foofu kàddu yi li ma waroon wax Pape Talla bari na ndax am na lu seq sama papa lu bari bari élection yi jàll dafa am benn booy bu nekk kër boo xamante ni si nii fii lay waree nu mu teel moo ne ko demal nga wate ci boo ñëwee maa lay jox carburant bi maa lay neexal ngir papa ngu taala ngóor mi toogaat loolu nag amul cadde ci moom war war la ci moom ndax mbokkoo la benn la te moom taala ngóor am na lu ma xam lu bari bari loo xamante ne si nii su ko defee ngërëm bi ja amul force la wasalaamaaleykum wa الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وعلي وصحبه وانظر علينا بركة اسمك هادي بشد جميع على صراط المستقيم gannaaw bu nu sant yàlla julli ci Seydina Muhammad noo ngi siyaare sunu bokk yépp li ko tàmbalee ci ñun ndax jaayal la nu bokk man waxuma jaayal la nu jaayal la dëkk di nuyu imaam sama waajur El Hadj Goudé Sarr di nuyu Serigne Diayane El Hadj Ibrahima Gueye di ci teg monsieur le maire ak El Hadj Mori Cheikh ñoo ngi leen di ziara. siyaare jigéen yu baax yi ñu nga xam ne képp ku falu ñoo la fal monsieur le maire xam na ca dara képp kuy def politique sàggane jigéen ñi sag falu dootul wóor kon jigéen ñi ñoo leen di nuyu bu baax monsieur le maire wax dëgg yàlla xale yi ñoom ñoo lay sargal waaye ñoom la naay sargal xale yi ndax lii yàgg naa doon suñu yéene ak sunu bébét yàlla koy dogal tey waaye lu ngeen mën a wut lu dul jaay jaay na ko gën ci ñun lu ñu mën a wut lu dul jaay jaay na ko gën ci yéen département Thiénaba bii foo mën a nekk ci Sénégal ñu ne mairie Thiénaba fan la nekk jawal Thiénaba ndax du tuxu ilaa yow bi waaye ku soxla maire bi di nga ku soxla maire jaay bi fanaan waaye ci boobu bu la ko yàlla joxe. xoolal parcours bi daal a def balaa muy jëm ci loolu politique kenn terewu ko ku neex nga far fu la neex xam nga dañu woote sargal taala sabab bi mooy politique xale yi maa ngi leen sant baax maa ngi wàcc yàlla ni fii ngeen teg seen tànk ngeen ko teggiwul di ngeen sargalaat keneen fii dul daal ndax ànd ja ànd jaayeen kese fal na meer commune ba ñu dëkk dañuy wax boo ko ñëwee Ndiassane wala nga gañe Serigne wala nga gañe Ndiakhate gañe nga commune bi waaw boo ko ñëwee jaayeen léegi ñu bi sa doomu jaayeen téye bi ci loxoom dem ba ñu ko jàpp gàcce la ci gaay yi man ngaa ànd taala sax te doo bëgg ka taala àndal waaye bëgg li taala yor mooy tax nga rek taala ndax moo mën caa daal la laata moo jot lii ñi ko yoroon daa ànd ak ñoom tër bi yu leen 89 ni ko Mawli waxee daal ak ñoom barke Demba Ndiaye lay doo ko jot meer bi ma koy jot dafa fekk moom wéeruwaay côté bu ne xaj nañ commune bi daal la waaye boo wéeruwul da ngay yomb ba xale wut leen wéeruwaay. taala dafa dóol ci taaba ji ni tey jot na ma nekk meeru jaay ñu ko doo ko nekk taalaa gi moo réegi ni góoraa gi ni parti ba mu nekkoon inversé bi ñu ko waaye taala am na wéeruwaay xëcc bi danaa doon li ma bëgg a doon tey mais yi suñu àggul foofu ak politique duñu mën a am ëllëg yi meeru jaay su subaa nag ku naa leen ci sama yox mbaa nga far fu la neex waaye far fu la neex taxul nga jël meer lu mën a neexee politique dafa am réalité yi boppam même élection yi ñuy def député yi présidentielle locale benn bokku ci sa borom ay réalité kon su ñuy def politique yi ko def ay réalité politique ba nga xam ne intérêt yi gars rek mooy jiital lépp dinaay dégg ci ay nit yaa ñu ne monsieur le maire li mu war a def dégg ko ndax cent millions mooy téeméeri millions ba teel nañ ko budget waaw ñu ngi wax xamuñu la ñuy wax conseil yëpp a daje kaa laa tëggi bis bi ñuy wote ni lii laa bëgg a def su baaxoon su waroon duñ ko ko woteel mais bi ñu koy wote wóor na leen nit ñi nekku fa téeméeri millions ñu woteel ko daal li ko am say kay dënnu bi at mi décidé waa Ndiaye bi daal la ko téeméeri ko waxee ndax bañ ko koy woteel lu ko dara ñu. te commune Thiénaba mu dégg leen ne sa tur ren ñëw stade bi Talla dëkk Ndiaye moo tax mu ne fii bu fi beneen maire dëkkoon dëkkam la ko yóbbu dégg ci ba jigéen lii fi Talla def maire fi dëkk mu def ko fi bu fi keneen dëkkoon def ko fa mu dëkk maa wax ay laaj si Gorasar imam la jaayee Talla bu yóbbu Màkka keneen ku doon maire yóbbu sam imam chef de village hélas yóbbu Màkka maire moo doon yóbbu suuf chef de village loo ñëw di yóbbul jaay ak imaam am loo ñëw di te dëkk ca dëkk bëgg a nan xool li ñuy def bu baax politique dafa am réalité boppam mais far naag Sonko far naag Diomaye far naag euh, Macky Sall far naag loolu du affaire bi même boo ko defee su taxawaay jotee taxawal ñu jaay kenn terewul kenn sax waaye xoolal lay jëmale jaayeen kanam ba sama kër sama dëkk bëriwul mais su la nee suba la wàcc ñëpp ñu ngi daje ni lii mooy réalité bi lañ ko def kenn tëriwul kenn dafa waaye politique dafa am réalité bopp taala li ko maire bi fay wallahi asin dundalu ko ñett fa te bala ngaa xam ñi ngay yóbbu nga dugg ba ca biir maa ko toog Ousmane Sarr parce que mooy sama maire maa ko nuyu au ko ziyaara di nuyu monsieur le maire a Ciss ak moom laa bokkoon ak xeex na maa moom benn at ba léegi kaso Ousmane Sarr da ngay wax dëgg ci yàlla te damay def continué di ko def bokkuñ si sox bi waay mais bi ma faroo ba jox ma ca la ma doon ni dégate bala ngaa xam ne waaja doon toog fi mu toog bisu tey bëggatu ko ci te maire mii mu doon li topp ci ginnaaw dox xam lu mu koy def bu subaa mu bàyyi te jaayal sax bi mu am ak sens bi mu am bu ngeen ko xamoon taala ñu ngi bu ko ñàkkee jaayal ñàkk meer bi bu nu fi toogee ñaari at lu ngeen jaayal meer géej bi wallaahi ko bu ngeen ñàkkee meer yi ñaari at toog fii lu leen jaayal bu bu subaa ngeen jënd te xale yu ndaw man ko yor mais nag ci ñii nga xam ne aw na yoon ba jot ci fa nga awoon ba jot ci xale yi ci ba jot ci bu subaa nag leen sëriñ Tall la doon wax waxuma waxu waxuma waxu jaar waxuma waxu wax ku ci gis sa bopp nag nga loolu waaye man ngaa xoolal bu politique jotee ñëpp di ay politiciens su football jotee ñëpp di ay entraîneur waaye gis nga bala ngaa nekk responsable fii ñi fi nekk ñëpp ay représentants de parti la. du responsable kenn parti boo mën a bokk rek da koo représenté fii bu élection jàllee banal taale mii ni mu daj keroog ba muy fëgg taabal ñi bu dul ban du doon keneen bu amul lu wéeru waaye dañ koy ba wax daa rampe baag pourtant parti ba mu nekkoon récépissé ba mu yoroon taal nañ ko nu ko jox ko keneen mais taal wóolu na boppam ni jaay nañ ci ginnaaw mu xaaju ne di ngeen ma jox baaba wut fukk ak doole mu ñëw gaa yi te doole jooju ba léegi mu waaye su ñu ko téye seen ci xale yu ndaw bu leen kenn ndax bu leen kenn tàggalee kenn di génn di fari doomi jaamoo mbaa ngeen di sànni xeex doomi jaayeen bu leen ko nagul kenn lii ngeen def na yàlla du seede na ni mën ngeen ko defal ay at maa ngi ci yéen di ànd ak yéen di taal sa bopp di seeti monsieur ko neex a seeti di sant bu baax góor góor la temps yii rek ànd na maag moom mu xëy di taw ci kawam ba deux heures ma ne kon ña koy defar ña koy naan attaay te suñu wetu jawar bi lekk ceeb boo ñu saaga rek boo su ma teel a ma jël suñu kër ba deux heures na jaay billaahi ko nekk noo ngi leen di sant noo ngi leen di fi ngeen teg seen foofu la bu leen kenn tànk su ma la ko jotee daf faat xam nga bu njëkk dañ daan wax ne politiciens yi dañ leen di nax mais léegi électeurs yi ñooy ndax politiciens yi. mbooloo mi fi ne fukki parti bu dul ñoom ñoo fi ne ñu la yow te mooy a benn carte nga yor kon kay kon électeurs yi léegi ñooy fekk ñëpp ay daje te taala yow góor a yow Serigne Sarr yow te mooy waxee benn carte nga yor politiciens yi kon ku mun a xati askan kay ñooy nax moo tax it lu ñu def gis ko man nag damaa amul lu may jaay gëmuma noonu. amuma xar Ibrahima mais su ma wàccee sama néeg mooy wàcc maa ngi moo ba heure bii ak Tafa doomu Fall maa ngi leen di sant ndax rek lay nekkal bu dee bëccëg samay xarit samay àndandoo ñëpp a ngi jaar man amuma xarit bu daaw monsieur le maire nii ku ne xam na ni politique bu réew ma ku ne xam na du ma far jaay ni ma fi fulee waaye jaay la ma jox Ibrahima ngi nii su ma la élection jaayee ma xëy samedi di ko taala sax maa ngi keroog soxna si ba ma tibbee sax doon naa la fa deux heures man laa am na monsieur le maire nee na muy ci waar yi man man la di jaay nag mu yittee loolu parce ma gën a ñor ci maire dem naa ca ndam seet maire fekk lu ba fanweeri Sénégal góor a moo ma wax dugg ñooñu ne benn bu dëkk jaay amu ci te bis bu ngeen ko ñàkkee yéene yow ko ngay xeet yooyee la ngeen soxla ca mais li ma la ne da ngeen koy wuti meer na ko di ko am waaye bu ko ñàkkee ñun dem kon góor góor nit téye jaay wax ko téye meer téye meer mooy téye jaay mag ñi seen wàll parce que man xar yi ñoo fi am na fu muy yàgg léegi ci kanam mu ne yëf yaa ko waaye na fekk nga xam fi nga na fekk nga am ku la téye sa tànk kenn bañu far waaye nan la xool ñuy fare sama jarbaat maa ngi nuyu Jibi Diop nag lu ma leen defalul dama ko te lu ngeen yaakaar ci man ba ci kàttan yàlla da ngeen ko fekk mbaa yàlla dina ko indi ba jox leen ñii maa ngi jiblu ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah. seen loxo waaye jotaay bi war na laa wan ne la gaa yëpp xiif nañ cere ji jeex na miskin mi jeex na tubaab fa kàlla macha allah ñëpp bëgg a reer yi ñëpp a ngi toog jàkkaarloog yow. kon yow sa xel bu ma dawee tuuti war ngaa xam ne loo xëcc dañ ciy jot te gis nga li ma gën a kontaan nii muy papa Gora Ibra Diagne suñu bàyyee lii ñu yor barke yu ne tëdd dañuy perte fan yi ay côté courant naa woon na fi kenn ku ne jaara ci ëtt bi la ñuy fanaan waaye soo wooyee papa Gora da lay boole ñi nga xam ne ñooy ñëw indi courant bi lamp yi su fayee sunoo meneen dëkk suñu jëlee suñu maire bi jox ko ñeneen suñu ta courant bii nii ak suñu salaire yi ko kon li ñu yor nañ ko gën a téye barke Seydina Muhammad suñ ko bàyyee li ciy wax léegi li nga soxla loo amut di nga bëgg loo wut barki démb damay déposé bëgg contour fi ma tëdd laa tëdd envoyé Ibra ni ko contour laa bëgg ndax tubaar fakkaa la macha allah papa góor a ànd ak man ba mairie fekk ma fa maam taala dani ko kii jaayaan la jóge boole leen ko ci programme yi contour yi ngeen yu indiwaale ko contour xombal laa waroon dem waaye demuma xombal bu sa kayitu doom ñëwee nga toog fi nga toog ci papa góor mu lijjanti la ko bu nuy xool ba ñàkk ko beneen meer duñu ko defal fan yële àndoon nañu gaa yi fii ñëw ñuy fecce ko mu laajte gi ba ñu jëlee meer ba kenn xamatuñu lu ñuy xool ba ñàkk ko perte nañu. imam ak monsieur le maire muy toog El toog yëpp góor jigéen mag ndaw. ñu ngi nuyu ñëpp euh, xam naa guddi na te kàddu gi ñëpp di xaar te kàddu monsieur maire suñu kilifa dañ di nag lu am rafet su amul woon ñaaw su ma fekkee jataay bi toog ma jóg dem waxuma ci day mel ni dama cee bëggul te ku ciy bëgg ku nekk man ngay dimbal bii jataay ku ciy bëgg nekk man ngay dimbal ñu nuyu ñëpp ndax heure bii am na mag ñu daal fekk ñu tëdd waaye tey ñi ngi toog ngir bis bi ngir kan monsieur le maire. après guerre 14 18 19 ñu ñëw sant jaay mu ñëw fii jóge fee ca guerre kon suñu demee ba 1972 ñu formé communauté rurale formé arrondissement. chaise bi doon tegu fa ñu ñëw ba 2014 maire bi yeewoo Thiayane loolu kon dañoo fay Thiayane borom te loolu bu taxawaay amul woon du am avant que ñuy àgg foofu yaakaar dafa xëy benn gis woolu ma ma ñëw toog non dafa wàcc woolu ma ma ñëw toog këram ca kaw ñu toog di waxtaan mun nga góor a dafay bàyyi politique man ko bàyyi politique mu ne ma ne ko ngir la mu naat sama gars yi daal neexootul ndax ay bokk lañu te tam suñu diggante mi ngi ñaaw te politique ko waral ma ne ko xalaat boobu nga am dama aw ma mun nga ni ma ne ko xalaat boobu nga am aw ma ko soo bàyyee politique ñun nu ñuy def xoolal dëkk bi tey jii moo yi moo fi nekkoon di politique lu nekk jéem na ko lu ne def na ko ba tey jii am na lu dëkk bi am waaye am na li ma gëm mooy na nga boole suñu doole doon benn boot sa ginnaaw xeex. mais soo ko bàyyee mun naa mën ko bàyyi Abdoulaye Diagne jamono Mamour Diagne moo a politique yëpp kàlla ko rombee fooroo ko nit dina ko nit dina ko dab dina la man day li wax soo ko déggee soo ko nangoo maa ngi sa kanam maa ngi moom mu wootee kër da yoroon commune rurale da koo invité bi ne woon jóg damu damu ko di ko doon de da koo taxaw jàkkaarloog moom ni ko Abdou mun naa mun ko lii nga yor moom laa soxla sees bii nga moom laa soxla kon fii lañ ko gembe waa jaay ànd ak moom jàppale ko mu ànd ak tund bi ànd ak commune bi ba mu jël commune bi ba mu jël maire kon tey su ngeen taxawee ni ko sargal ñun ñooy delluwaat sargal leen xam ne li ngeen mu yor tey ak ñun ñi koy jàppale yéen a ko ko jox kon loolu mënuñu ko cee bañ a wax. yàlla dogal na nag muy nit bu baax waaye muur yaa ngi ñuy sant sant di nu gërëm mais ñun ñooy dellu di la sant di la gërëm ndax sa maam dégg na Serigne Ndiaye sa waajur dégg na Serigne Ndiaye yàlla nga dégg Serigne Ndiaye taxaw nga dëkk bi taxaw nga mbokk gi taxaw nga tund ndax ba dara dul dara li may wax ñi ma mag xam nañ loolu moo fi taxawoon. lu mu xam lu mu def lu nekk daj na ko ngir dëkk takk na watiiram dem fu nekk lu ne dégg na ko ngir dëkk ndax li wér te wóor mooy maam Baye Njàmme moo ko sampoon ni ko kaay di ànd moom ba mu xamal la ko li mu xamal mu nekk fi ba suñu jëm yàlla tey dara ñaaw kon gor nga jéer nga bu baax yàlla yàlla sàmm la yàlla yàlla aar la yaa ngi ñuy sant rek ñu doon war a dellu bi la sant. ndax it nag bari na lu xam yéen ñu ko xamal bari na lu ñu ko ñime kon sant nañ la bu baax gërëm nañ sëriñ euh, jërëjëf li nga def mënoo koo bañ a def ndax kenn ku ci nekk la nga nàmp moom ngay toppal li nga am mënoo koo bañ a am li nga def mënoo koo bañ a def ndax fi nga bokk la sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si Al Maktoum dafa wax ni doomu aadama bul rus mais na nga jom su ma rusee sëñ Mbàkke su ma gëstoo gisuma sëñ Mbàkke la ma ko rusee woon mën naa caa dellu mais nag sa deret foo jëm yaa moom am na loo xam boo ko jombalee foo dem yaa ngi sa deret kon fi nga bokk mënoo lu ñaaw xamoo lu ñaaw lu baax nga xam moom lañ jëmbat yow kon loolu nga mën a def mooy mooy mooy nawet ba sax njaboot dëkk bi sa dëkk la fi dëkk ñun bi ñuy commencé politique ñëwoon nañ man ñoom Mor Sarr eh, ñun ak ñoom Mamour ñun Mansour Ndiaye ak ñun rahmatullahi alayhi ah, Bataar bi ñëw seet si nag ñu ëpp si biir fi njëkk a indi fi Pape Babacar Mbaye ci jamonoy El Hadj Serigne eh, Serigne eh, El Hadj Cheikh bi fi Pape Babacar Mbaye muy ministre booba temps moom moom laa xam ci ministre bu njëkk a taw fii ci prix Diouf Ndiaye takk boobu ñu takkoon. taxawaay boobu ñu taxawoon loolu moo demoon ba bi alaaj Seex bi mu fi nekkee Bill Clinton di ñëw fii ci ta Mbaaleen raaraab yam Mbaaleen booba ñoom yaa daal ñii alaaj Seex bi nekk président bu mu daal ñoom ñii ñu nekk fa nekk ci ginnaawam loolee taxawaay boobu ñu taxawoon moo tax ñoom ñu dem saisir Christian Valentin ñu ko jaayee élection yi ñëw doo fa am dara ndax dëkk ba fépp nañu jële Christian Valentin financé diggante jaayee Mbaaleen ak ak fii raaraa bii looloo koy indi su ma juumul c'était en quatre-vingt-dix-huit xaw ma quatre-vingt-dix-neuf kon loolu lépp taxawaay waaye nag ñun xamuñu mënuñu bëgguñu kan lañ jóg taalamuñu ñu ngi ci ginnaawam tey ba ëllëg fu mu ñu joxoon fa lañ lu mu xam moom lañ xam lu mu xamul xamul ndax lan moo ñu ko ji tey nag li nga wax léegi rek moo fi gis na nit da ngay am kilifa nit jëm nga xam jëm te ku la suuf ne ko jox politique boo jëmante ne da rampe ku toppewul kenn du la topp da ngay topp ci ginnaaw mag ba mag mu yoroon mu sonn ko ni la am balaa muy wat wala watee nga far boo toppul ci ginnaaw du sotti. lu la waay mën a ak ku fi ñëw ak lu mu mënti wax su tey jii lu muy wut su amee premier intérêt ci boppam ak ci boppam premier intérêt bu ca jotee ci boppam la ñëw ak ci boppam waaye tamit 2014 bi monsieur le maire di jël maire yi su jëlul woon maire lamp yii du fi tàkk 2014 laa wax. buntu côté bu nekk toj nañu bu nekk xeer nañu ba may dox di dox di dox di dox di dox ba dem ci prestataire bi yoroon dem fexe ba gis plan ndekete woo am na lu ñu mais moo décanté situation bi nga booba dañ ne woon bagage de courant bi yàq ak baale ak dara jaay bokkul la ko génne moom moo ko décanté bu dul woon mer waaye nag yàlla dogal na mu doon ku neex a ndax li tax mu neex a jàppale mooy nit bu amee métier am gëm-gëm am palmarès kooku ku ko dénk mu tëye ndax nag kenn mooy ko ci métier bi mu wax kenn mënu ko ci yàlla dogal mu dundal tey jii biñ ko joxee mairie ak tey lépp fi réalisé comme ni ko président moo di waxee léegi ñi ko fi jiitu de xaw ma seen réalisation lépp mais man li ma xam ci ci côté ma xam lim fi réalisé kenn réalisé ndax. bu ñu nee commune Thiénaba 38 villages la ak 23 hameaux muy 61 villages nga ñëw fu amuloon ndox nga fexe baal yóbbu ndox fu amuloon école nga fexe baal yóbbu école école bu ñu collectivé wul nga am ambition collectivé ñu commencé ay murs de collectivité amuñu collectivé amuñu collectivé wu démb ba timis maa ngi ci àll bi. mag chef CADL di natt ay école yu des yoo xam ne dañ ko te loolu lépp am solo tey jii ku dem Thiénaba marché ba fa newoon doon ay zinc ñu toj ko buure ko te léegi ñu ubbiwaat ko mu defaraat ci magistère ku dem Thiénaba gaar la même chose marché ba fa nekkoon Mamadou Dia ko fa defar ñu réceptionné waat defaraat marché balaa yàgg bu soobee yàlla balaa mat 15 jours wala un mois incha allah marché bi dina commencé alhamdulilah ndax it la ko la ko waral mooy ba ñu bëggee commencé loolu ñetti marché yëpp ñun noor ko di defaral ñaari marché Thiénaba Gaara Thiénaba Seck ba mu pare nga doog a ñëw commencé mu jaay sañ nañ loolu parce que fi lañ dëkk te ñoo koy liggéeyaloo moo tax ñu def loolu incha allah bientôt mu commencé lii sag la te monsieur le maire ko fi tey jii boo demee fële armée ne boo boo daawalee boo guddee doon tey boo dee xooli lamb man nga faa taw jënd ab dëkk la te yàlla dugul loolu printing salaire yaa ngi ni ba ca ba ca terrain ba terrain terrain Karaba Seck amul woon nit amul woon grille de protection Karaba Gare maire moo ko def grille de protection terrain Bakhar bàgg moo ko clôturé terrain Ndiaye bàgg la woon moo ko clôturé mooy comme ni ko dañu doon wax léegi lépp c'est des yoo xamante ni monsieur le maire moo ko def indi fi ay forages ñu am projet tey jii trois cent et yoo xamante ni ñu war a def arrêté Karaba Gare ba naaj muy muy muy Latri ak beneen projet treize treize euh, kilomètres cinq cent yoo xamante ni war nañ ko defaat fii pour connecter dëkk yi loolu yëpp c'est des réalisations multifamiliales li ci dugg fii ci gars yi kenn xamul lu mu doon ah ay éduqués yoo xamante ni tey jii fii dëkk bi amul kër booy dem ci ay jamono bi ñu ko ñi da nga daan daje ñoom ñu dem ci àll loolu lépp tey jii jeex na fi te la. xoolal courant bi tey fii la ñuy fii ñu tombé dégg rek rek rek ñu ngi juróom benn dëkk yoo xamante ne ña nga ña nga leen di sàmbali quoi ña nga leen di sàmbali quoi juróom benn dëkk yi bi maire di jël commune bi 69 euh, villages moo ci amul quoi tey jii tey jii 9 villages lañ des 9 villages moo fi amul courant tey jii fi ñu toll na courant mais yooyu yëpp c' est des réalisations yéen sax programme bees bi am ngeen ci benn dëkk mu yaatu incha allah gars yi war nañ fay ah euh? kon loolu muy ay réalisation yoo xam ne monsieur le maire def na kon bu ñu taxawee dina sargal ku yeewoo sargal ku yeewoo jàppale ñun nag dañ laa gëm gëm sa pas-pas xam sa ambition ci lu baax li ngay def wàllu social moom yaa ci man ku yàlla bind. day dem ba yootul lu mu joxe léeg-léeg ma ñëw ci kër gi laaj ma ñu ci kaw man lu ma dal ñu ne ma nga tëj de man daa si yor dara day feebar man su ma yoree dara ñëw ñu ko am boo ko ñëwee am léegi mu jóg dem loolu lay dund kon ku mel noonu soo ko amee da nga koy téye ak sa fukki loxo tey jii nag bu Talla Diagne mii politique wala Mody Gueye mii politique wala Gora Diagne mii politique politique bi dañ jàpp intérêt boo xam ne bu ko bàyyi woon tey dañuy torox day dem gis nga yàlla jan ak ki yàlla jox la nga koy jox ba nga koy jox fekki woo ko kooku iñaane ko wala nga soxore ko du teye la war a am mu am ko soxor dafa tànn parce que ba muy jóg fekk na yàlla séddale na ba pare bu ñu jàpp ni kii kii faj ay soxlaa ci politique la ko amee déedéet su neexoon suñu borom suba suba suba commune bi jóge suñuy loxo ñu delluwaat ca lañ nekkoon parce que kenn ku ne am nga métier moo xamante ne moom la la yàlla seet li nga nekk te jaakaar naa nag xamante nañu démb tey loolu kon nañu gëm suñu borom subhanahu wa taala nañu rafetal xol te yéneen di jàmm gis nga xol la yàlla fekk si newoon na doomu aadama ne ñu ngi gënante ci xol mais nag ñu ngi rawante ci xel ki la gën a rafet xol moo la gën a moo lay raw li ko sëriñ waxee léegi nag mooy ni nekk politique kenn aayu ko kenn kenn ku nekk bu la neexee nga dem politique ku nekk faral ka nga war a faral mais nga xam réalité yi ci politique que la élection présidentielle la mu laaj ak élection député la mu laaj ak élection locale la mu laaj bokkul réalité yi bokkul fi may mujj nag mooy yéen jeunesse yéen laay gën a ngeen xam li ngeen am lan la ngeen xam dëkk mag ñi leen jiitu woon li leen waroon a def def nañ ko bàyyi la maam waroon def nañ ko bàyyi la leen waroon def nañ ko tey jii ñu fi toll li ñu war ko kon yéen itam bu leen mu jël seen bu réer gis nga am na lay am na am na lu ko dundati loolu wees na jamono tollootul foofu fii ci penc mi da nga daan génn fii une heure fekk fi xar ñu taxawaat kan moo fi bàyyee kii lu indi du jamono moo weesu ko yeewu leen yeewu leen jaayal dëkk bu mag la am nañu fit mankoo nañu parce que jaayal jugoo nañ daan mais gis nga jamono dafa weesu ci kii bu ma dóoree ma dóor ko suñu demee duma leen ñibbi si toogaat fii ci penc mi dem pëtam wala ñu booy ataaya toog du mujj fenn jamono na foofu rek ku nekk looy wax da nga xam looy def na koo xam ku la tooñ soo ko mënee baal baal soo ko mënut a baal demal ci yoon li fi xew jamono yi passé loolu lépp lu mënoon a ñàkk la nit nag xaar day kon li ma leen gën a dénk mooy topp ci ginnaaw man lu ñu wadal ngeen for jàng leen wut leen xam-xam wut leen métier pour yor seen i një pour yor seeni i waajur pour defar seen dëkk man day marchandise um gaayam la li wér te wóor mooy fu ma jaayaan soxla dina ma utiliser jaruma sant jaruma gërëm li ma war laay def tey jii ñëpp mënuñoo bokk di politique ñëpp mënuñoo bokk benn métier ñëpp mënuñoo bokk nekk ci jàkka ji wala ci daara kenn ku ci nekk da ngay nekk ca la nga war a nekk kenn ku nekk nag boo nekkee ca la nga war a nekk suñu dajee ci penc mi penc mi jag lii mooy defar penc te ñu yéenante jàmm yàlla xol lay fay ku yéene ñëpp jàmm faw nga am jàmm mais ku yéenewul kenn jàmm doo am ku yéenewul jàmm nit ñi billahi doo am jàmm ku yéenewul wërsëg nit ñi wërsëg kon nañu fonk kilifa yi fonk waajur yi te yéenente jàmm kenn ku soo mënee dimbali sa morom nga dimbali ko te yàlla tax sa nga wax ci moom lu nga wax ci moom lu rafet kon maa ngi guddal waaye ni ma ci yéene woon lépp lépp xëy na mënu ma koo wax waaye nag euh, maa ngi ñëpp di gërëm ñëpp di baalu ñëpp àq. képp koo xam ne amee naa naa amee nga ma naa maa ngi ñaan ku ma amee naa te yàlla tax salaamaaleykum wa rahmatullah wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bi yàlla julli ci sang-sang Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nuyu oh. borom dëkk bi Serigne Mandiaga di ko jox wàccu waayam di ko ñaanal fan du ànd ak wér yan bi gis loolu dama ànd ak di nuyu baay Baye da ak ñu ko bokkal ñëpp di nuyu mbooleem boo xamante ni yaa ngi toog ci euh, fii nga xamante ni moom la waral moom la yàlla dogal tey ñu koy defee programme di nuyu tamit sunu xalifa sunu maam sunu baay Alaaji Alfa ak ñu ko bokkal ñëpp famille Diagne yëpp di nuyu ginnaaw bi ma nuyoo famille Mbéyeen dem famille Diagne ak mbooleem boo xamante ni yaa ngi ci biir Diagne muy góor jigéen mag ak man yàlla dafa dogal. aw fay boo xamante nii gëm naa ni sax yaakaaruma ko mu jugee ci man dem Touba parce que kan maa lebal loo xamante ne nii lu ma war la woon lu ma waroon a def la woon te mënuma ko ngir kilifa gi nga xamante ni moom lañ bokk muy El Hadj Talla Ndiaye yàlla dogal mu doon sama ténor nekk sama man nee naa leen aw sëriñ amul kenn ku nekk ci kaw suuf koo xam ne dinaa dem dina dégg samay loxo dina ñaanal ma nit ginnaaw jëmm ji ak sama yaay ak rakam yi nga xam ne ñoom la yàlla boole mooy sama sëriñ mooy sama papa mooy sama lépp ci àddina kon lu yàlla dogalee tey ñuy def lu mel nii te yàgg koo def ci jaayaan kon man awuma seen fay kon muy góor muy jigéen muy mag ak ndaw maa ngi leen fay yàlla ni am fay yàlla leen fay léeg-léeg sax ñu nekk ci biir jaayaan dañuy wax Ibra dafa gëj jaayaan wala wala du ñëw jaayaan maa ngi ñëw jaayaan tout le temps mais mënuma génn di dem ci fréquentation yi li tax mënuma génn di ci fréquentation yi du dara du rëy du ñàkk du dara mais léeg-léeg da ngay toog ñuy wax ci kilifa loo xamante ni yàlla xam na ni day daw sama yaram ba dama fay toog ba génn sama génn loolu rek mooy waral may daw yenn fréquentation yi ndax kii day kenn ci man am fu mu àgg ci man te am lu ma ko yéene te mënaguma ko te incha allahu rabbi seen naa ko def ginnaaw loolu ñu ngi nuyu ñi nga xamante ni ñoom lañ bokkal ASC bi muy président ji bi ak Mor ak ñi ko bokkal ñëpp bu ci gaal gi ndax ASC bi bu demee ba toll fii gaal bu am am am solo kon gaal gi muy euh, comment dirais-je euh, Baye di dal ak ñi ko bokkal ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaanal yàlla lii ñuy def ni yéen la ko gisee. parce que am na taxawaay boo xam ne ay jamono metti woon na trop jaayam mais ngeen jël engagement boobu noonu mooy dégg écho yi ngeen di toog seen garab di jël seen téléphone bi raccordé xaalis yu weex tàll ngeen ay seen kon bu ñu demee ba jël relais boobu ci yéen ñun du xool ni diis na wala nañ na wala métti na parce que lii yéen yéen ñu ko yéen a ñu ko yéen wan yéen a yoon kon ñu ngi leen di sant ak boo dem boo xam ne yaa ngi biir jaayam ndax am na ci yoo am nañ xalaat bi ñu koy def am na ñoo xam ne ci am nañ doole bi ñu koy def am na ñoo xam am nañ am-am bi ñu koy def kon ñun ñëpp ñoo ci yem même point de gàtt ak jaayaat ñoo soxla te bu jaayeen soxlaa doomu jaayeen day ñàkk dëkk bi moo ñu ñor te dëkk bi incha allahu rabi comme bëgg mu àgg ko jéem ko àgg ndax am nañ yoon mënu kilifa yi fàggal suñuy mag fàggal ñu ko ñuy tam ci yoon boobu ñu ko seen leen nekk ba kere suñu borom bi jëliwaat ba leen raneet bu dox suñu ginnaaw kon du ñu am lu cant ak ngërëm ak ñaan lii lépp man la waroon su leen ma ko teggalee kon du ma man lu sant gërëm loolu rek moo tax ñu jël kàddu monsieur le maire ak Baye Serigne Sarr ak Baye Mori Goura mention spéciale parce que tey am na ci loo xamante ni ñii leen koy def te xoolu leen ci mbokk xoolu xool mooy deret kon luy ngeen di def ni ñun d'abord gis nañ ko te noté nañ ko jàpp nañ ko te incha allahu rabi fa seen ko fay buñ ko mun a fay ci ngeen fay ko seen njaboot incha allahu rabi li wax tamit maire na nga xam ne jaayaan bëgg na jaayaan ba ñuul la képp kuy juddoo jaayaan di mag di ndaw di góor di jigéen ku la bëgg la mais jamono léeg-léeg muy toll foo xamante ne nii ay manque de diide am manque de diide boobu nag bis amee ci jamono yooyu rek kuy nit na xam ni manque de diide nag mais du mbañeel bi dina ñëw lépp loo xamante ni bëggoon ko ko ci nit yàlla mën na la koo wommatal ba mu ñëw say tànk si dinaa xam ne moo woote l'islam yàlla kon boo taxawee lépp da nga ko bëgg am wala ku jige ci yow wala farandoo ñëw ci yow ni la war a am lii fas naa nga kooku man lay yàqal loo xamante ni mënu la koo defaral kon gis lii am nii ay jamono ci ginnaaw manqué woon nañu trop toog ko fii ci penc bi woo fi benn ndaje pour xool nan lañ mën a def ba suñu jaay ñi ci ëpp toog sa ginnaaw te yàlla wamatal na la ko te li la ko may muy muñ ak ñi ko bokkal bu la kenn yàqal ni nga jot a bari na yaatu na te waar la woo xamante ni ñu ngi ci yoon bi tey te incha allahu rabi lépp lu amoon lu ñax leen ñu ngi leen di sant di leen gërëm man nag comme ni ko Ndiaye waxee ak ñëpp comme ni ko góor a waxee mbala euh, mbalitu monsieur le maire tey ñool na ba mënu ko tëb gàtt na ba mënu ko bëgg ak ñi nga xamante ni ñoom la ko yàlla boole ndax ci wàllu administration nee naa ko man nekkuma ci wax nekkuma sa ginnaaw di la liggéey ci wàllu administration. dama nekk sa baay faal lépp lu administration laaj soo ma ko mënee ma ko santee dinaa ko def bu dee xam-xam bu dee doole bu dee temps pare naa ko jox loo ko te jox naa la ko ba pare amul lu ma ciy ñoom mais bis bu yàlla doogalee nga am foo ak yow ñi nga xamante ni ñoom la yàlla boole ngeen liggéey ci wàllu administration yàlla ñuy dund ba lépp luñ bëgg ci commune wala tund jaan ngeen def ko mais relève ba na nga bàyyi xel ni ñii nga xamante ni ñoo engagé seen ndig bu soobee yàlla. lépp loo ci bëgg ngir ëllëg ngeen ko mottali te dinañ ci def lépp luñ ci war incha allahu rabbi maa ngi wàcce foofu kàddu bi sant yàlla bu baax la di sant sama maam Sadio Gueye di ñaanal sama nijaay fa mu tëdd suufu Touba yàlla seen ci ko yàlla yàlla yóbbu ko àjjana yi fekk ci incha allahu rabbi ak moo leen ku fa fekk ak ku ko fa fekk di wax salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. ko fi tey te biñ ko déggee dugg na ci xol yi te ñi am dégg dégg dégg li fi ji lépp rafet la. kon bu ñu leen santee dañ leen a war a sant ndax da ngeen koo jëf man nag su ma taxawee fii di wax du sama man man du sama jëmm joo xam sama jëmm di du sama moyen du sama doole du sama dara man lu ma taxaw fii di ko wax rek xale yi ñoo ma tax ma taxaw fii di wax ndax buñ ma ko fal woon du ma taxaw fii wax kon kàddu yi dafay gàtt lool parce que kii ni fa muy Moussa maire dafa xaw a tawat kon kàddu yi dañ koy gàttal ndax luñ ko war a dégg dégg dafa am lu wax sànq loo xam ne nii muy maire bi dëkk Touré li fi wax léegi nii rek doyal na imaginer li fi wax ni tey loolu rek doyal na sargal Moussa le maire imaginer ku tawat te doo hôpital war a opéré amul fenn fa mu ko joxee woon mu laamu poosam poosam amatul pexe kooku noonu dem mu dem ci musala maire amul kenn ku xelam dem mu dem ci musala maire musala maire faj aajo yooyu imaginer ku tawat tëdd hôpital ñu war koo opéré amoo benn amoo fenn foo xam yaakaar nga ko mu dem ci musala maire musala maire fayal ko loolu kon kooku noonu maire bi luy fukki wax gis nga li wax nii mënu ko woon bañ a ñàkk a wax mënu ko woon bañ a ñàkk a wax gis nga sàmm mënut a passé sàmm gis nga xale yii defaluma leen dara ñoo ma xool ne ma yoon bëgg a nekk nga nekk président biñ dikkee wax ma ko woo ma fee ci ñu réunion ne ma yow lañu def président biñ ma waxoo loolu ma leen dëkk bii am nañu fi ne ñuy sonn ci sport dama leen di woo nekk sama ginnaaw ñu àndal liggéeyal lu jëmale jaayam kanam ma loolu intérêt jaayam dama ci dox man sama wàllu bopp biñ dikkee wax ma ko ma am ñu ma si sone muy jay ñu nii jàmbaar la kenn mënu ma xëcc ko mu ñëw Ibra Gueye ñii du dégg bëccëg fu booy soxla oto pour fu bali mu mu taalatoom yóbbu leen daf laa kenn gaara soxla ma xëcc ko mu ñëw mbay doom mee danaa dimbali booy yi dem Touba Mbacke yooru ñëw wala mu nekk Kaolack ni ko am nan marché amuñu kenn ko ñëbbu mu dawal otoom yooru Touba ba Kaolack imagine loolu ma xëcc ko mu ñëw man xëccuma kenn koo xam ne nii day day def pour intérêt personnel dama koy xëcc pour intérêt jaayaat ñii li def nii yombul bàyyi sa temps bàyyi sa lépp ngir jàppale xale ku leen jàpp jàpp naa ku leen bàyyi ma bàyyi la xale yi nag bin ma yenoo ba ca kaw ci ñin ma dóor daf am solo trop ñin dafa am solo ñii dama am fu ma jaar ñoom ku si mel góor a daan nii man gone yi suñ ma ko wax dama see ñee te suñ ma ko waxee fi ma wax dama bu ma defet góor a mii damay dem gaaraat di raxas oto maa ko daa raxas di ko daw fu ma neex jaar kon su gone yi tourné yónni am ñu ma ba wax ci a mii dama ci am dama ci am damaa xam ne lu ma su ma yegg yaa ko def kii moo ma jàngal waxtaan ma yor otoom bàyyi Mori mii man boo ko Mori dama naa ko bàyyi parce que damaa xam cër bi mu jox sama bàyyi ma xam ko xale laa nee xam naa ko sama papa lu xam nga moom la muy wax lu sëñ Jaayaan wax laa wax lu mu waxul waxuma ko sëñ Jaayaan Ibrahima Gueye dafa am fu mu taxawoon papaam kon Mori mii su mu taxawul ci ginnaawam duñ gor ma dem ba am permis di dawal yor sama moto di dawal sama mag jëlee oto ni ma. comme man ngaa dawal fu mu toll nii toogal xaar yàlla sama nijaay Serigne Sarr ñii jëndoo toom jox ma Ibrahima Sarr mais ni ko doo ko jox pour sab mu jox ma bi ma ko joxee may dawal di dawal dewal ba am ma ne ko am na ma ma bëgg a doon moom ma sawar na ci mii moom mii ko ne jalax ma am na fu jaar ak man bi mu déggee loolu mun ma ñaata nga man ko taalaa yor mun ma indi li nga ma joxoo mu jël wata jox ma jënd oto jox ma li ma du ma la bàyyi ci noonu li ma oto bi bala koo dawal lay nekk sa tur mu jël lépp mu jël ma ko sans ba tey jii kon man su ma yoree sama yëfi bopp di ko dawal ginnaaw yàlla jëmm jii ma moo ma bëma su ma ci demee damay am ndam ma tuddee ko ñëw ci monsieur le nii kii dama doon dajale di jël samay démb sama Dakar maa ngi ma ba tax a gàllankoor wax dañu yóbbu sa bàmbaaka man leen baax may dajale ku si nekk bu nga sa bàmbaaka wala sa yaay may dajale bu fekk ma fi may dajale jël yóbbu sama papa ma mais kii man naa ko nii nii nii man ma la fay bu ñu waxee dëgg rek tey la tax man ànduma kenn yaa ma neex déedéet man doxuma juróom du ma ànd ak ku yàlla bind ci rek déedéet kon su may ànd ak nit damay ànd ak nit ci teraanga bi may defal mais nit bu la defee lu baax wax ko bu la defee lu bon kooku bu noppee bu ko wax mais lu baax dañ koy biral kii ma am fu ma jaar ak moom fii maa fekk Moussa Ngode ba bàyyi muy suivre lamb mu nga lële ma ne ko Moussa lamb ngay suivre mu ma wax ma ne ko dama lay def mbër nga dem bëri ji moom ma gaynde loolu yomb na ma ne ko maa la ko wax dinaa ko def ma woo sama xarit Siri Jaxate mu tëgg jenn lamb mu so baax yaay bokku woon ci programme bi bokku ci woon lamb jaa ngi doon daw RFM ma ne ko Moussa mu naa ma ne ko di nga bëri mun ma sawaay loolu yomb na ma ne ko baax na ma taal sama do dem ba kër Siri Jaxate ni ko Siri sama gaay la dama am mbër moo xëy dama koy boole ci programme bii mu bëri moom ah jiw loolu jafe na ma ne ko dañ ko def parce que jaayaan laa dëkk am na benn mbir mu ne mun ma jaayaan xam naa jaayaan nga mosala mer taw jaay nan ko waaw mun ma ko dina bëri ndax sama xarit ma ne ko musu ma ni ko dina bëri mun ma sa waay ji nga bëgg a def ma jël ko woo Sidi Diakha Sidi sa dugal ko ci programme bi musa bëri spécial la bëri jaay ñu ngi ñoom ñu suivre la am xam ko spécial yombul bëri spécial yombul te keroog baax yaay mee moom la bëre ma dëgg bi wax ko ma kañ la may ko saasaan bu dem si jeexale si ko jox ko avance mun ma gay ne lii ma jox de mu saa est-ce que dafa métti may ne ko dafa métti waaye am na comme yàlla mbooleel mun ma kañ la ko Moussa Lamine Tall Ndiaye. yaa ngi dégg ma taal sama ànd ànd ak Serigne Gueye mu yaataa ko ni ko nañ dem Thiénaba bu ñu demee deen am ndam ma ànd ak moom dem Thiénaba. fekk ko ci bureau ba fa la fekk Ibrahima Gueye ak Adama xaw ma ba ñu yeggee Ibrahima yi taxaw am na ñu dafa nekk rek mais rangu yi defuñ dara dañoo dugg direct ñu ne ko kii dañoo day bëri te dañoo soxla ko jàppale xam nga naa def bu ci tuwaaram génne cent mille francs teg ci jox ma ne ma joxoon ma ko baax yàlla Mohamed combat boobu ñu daan ko Mohamed deuxième combat moo xam ne ko dañuy delloo barke alxuraan ñu delluwaat ma fëggaat bureau mu ubbiwaat mu daajaan ma soixante mille joxaan la paas dix mille muy soixante dix mille waaw mais dama ginnaaw doxul bàyyi topp koy taxale bàyyi koy boj gis nga man nit nit yey wax nga ko sànq yey wax nga nit gis nga nit day am te ku ñu yàlla booleel am nañ njëriñ ci ñun am njëriñ ci dëkk am njëriñ ci tund bi yëpp kon xam nga lay xamal mooy nañ ko soog a dox ko wàcc waaye loolu am solo leneen amul am na lu wax wax ji lu mu bari bari am na lu ñu sumbul nekk suñ kanam ngallaawaay buñ ko fàtt buñ demee ba nga xam ne nii li ci am solo mooy bu bëggee am foo xam ne taxaw na ko pour am loo xam ne nii askan wi ñoo koy fal nañ ko ko jox mooy li bàyyi moo di mooy ñun nag amuñu sa fay ay see bokk jom jaayam amuñu sa fay ndax yàlla dogal na fépp bërki dem moo njaay li xew lépp ñu limal ba nga dikkee keroog man man dama sax dama affaire dama wax sax dépassé mais amul lenn loo xam ne nii seet nga ko def wala nga xool nga ko da ngaa dikk rek yàllu lépp teg sa waaw am na ko ma fàtte nag muy ngañ ba nag ba moom jàmbaar jàmbaar la ci équipe mercenaire bi ñëw ngañ ba bu mu met na ma fekk gaara na ma fekk gaara ma yet ko sama indaale te kooku dafa war a fay comme kooku amuñu fayam waaw xale yi nag moom ñu ngi sant di la gërëm ñii ma yàlla booleel daal man gëm naa ne soxla bu waa ASC di am su ma leen songee dina faj loolu moom dama leer waaw ndax man dama rek laay xaar moom laa ma ne ma ne jawaat ñoom man man dama rek laay xaar bu ma nee dama rek ma jawaat ñoom en tout cas daal waa ASC bi ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm monsieur le maire ASC bi ngi lay sant di daal Serigne Sarr ASC bi ñu ngi lay sant di la sat sëñ Mbacke gis na sa taxawaay gis na sa taxawaay mu ne def regroupement pour fu bari ci école la ba teere te moom jëmm la yàlla xam na ko yëkkati xaalisam dina jox kon kooku noonu am na ci yenn xeetu baax a baax yoo xam ne nit ko def jaatu na nga delloo ko ko sargal ko te moom la mus ni defal Moussa la maire mii kenn mënu ko kenn mënu ko defi ñun daal li ne suñ xol lépp mënuñu koo bind di ko wax di la ñaanal nag tawat bii la yàlla teg yàlla ko yàlla teg waaw man na ko teg na ko def di sant ñëpp di gërëm ñëpp di santaat ASC e bu baax xale jaay ay jàmbaar ngeen suñ yi nag gis na ko seen yi rafet na lool buñ xalaatee dañu leen seeti nee na yëgal suñu xaalis dem jëndal leen dix mille sols baax kese la tax a jug leneen a jug loo xam ne jëmale jaayaan kanam ñu ngi ca mais tey la jaayaan nag bokkul të waaw pour mu leer ñun luy jëmale jaayaan kanam te lay lu koy tegu ginnaaw nag waaw. te nag yàlla dañoo boole ay kilifa yu baax yu oyof leen ne jub leen ñu jub leen ne toog leen ñu toog kon ñu leen sant leen gërëm ñu leen jaajëfal daal bu baax a baax jërë ngeen jëf def ñoo ngi nuyu Serigne Diayane bu baax Serigne Ibrahima Gueye di ci teg imam Moura ak ñi topp ñoom ñëpp di nuyu waa dëkk ñu yóbbu waa dëkk bi ma teg ko ci loxoom sama xalifa sama mag sama xarit Alaaji Alfa Jaañ mu jottalil ma ko magi dëkk bi yëpp di nuyu nag Mori Gueye bu baax nga xam ne moo yor kàddu Serigne Ndiayane di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yal na yàlla guddal fanam te dolli ko wér bala ma ko fàtte may ñaan yéen xale yi lépp lu ngeen ma soxlaati maa ngi leen di ñaan bala ma koo yëg jaar leen ci boobu loolu laay ñaan nag taxawaayam mate na ko fullaam mate na ko faydaam mate na ko loolu nag dama koo ñaan ndax mënoon naa ki nga xam ne mooy sunu ndaw may leen jaar leen ci moom mais moo ri dëgg bi nga xam ne moom la yore moom laa bëgg képp ku dëkk jaar mi ko ndax maa ngi génn jaayaan maay kan yoro kàddu suñ jaayaan te góor a wax léegi ni commune Thiénaba 38 villages ak 23 oma jaayaan moo ci mag koo kuy génn yor kàddoom ña ngay bàyyi am na cër boo xam moom lañ la war a gunge kon Modou maa ngi lay sant bu baax di la gërëm di sën gërëm nag sama xarit sama wóllëre sama doomi ndey Serigne Sarr ndax wax na ko léegi nee na politique boolewul wax na dëgg am na xale yoo xam duñ ko xam mooy fasu bant bu masaa toll fii ci dugub bi da dem fekk banque boo xam bu gudd la bu am doole nga dagg ko yàq ko ba mu yor bopp fas mu am ay nopp nga takk ci ak buub di fa war ndaw coono ëppul loolu maa ngi jaar nañ ci kon li wax ni politique boolewul wax na dëgg sëriñ doomu jaayam la ndax équipe bi nga xam ne moo fi nekkal ñu nekk ay ndaw ba tey képp ku ci génn lu àdduna rek ba bisub tey tàggoowul moo tax li gën a ci àddina am àndum daaw waaye yàllaa ngi dogal ñun ñu tolloo woon jamono doon yàq pate meew di ko def meew ba tey tàggoowul te li may xam na ko di ko gërëm bu baax taxawaay yi parce que am na lu muy def ci biti loo xam ni man la war mais bi ma koy defal lépp lu ngeen wax fii defal na leen ko defal na ko koo xam sax xamu ko kon Serigne yàlla yàlla gën gën la safar gën laa jàppale lii mu def tey nii na ko bañ def parce que comité électoral bi mu bokk jaayeen bokku ci deret la bokk jaayeen ak fulla ak fayda ba yéene jaayeen ndam wóor na ma ne tey bëri ko or bu wàccan ñu ne ko nan ko wàccee jiite ak jaayam fu la gën a mun wàcce leen ko jaayam parce que loolu lay jëf kon sëriñ jërëjëf ñu ngi sant di sant sa njaboot di sant nag bu baax gaynde gi nga xam ne mooy gaynde commune bu gaynde jaayam gaynde commune muy góor a jaay góor a guddi ak bëccëg mi ngi ci terrain bi te la muy yéen la koy defal parce que bu ñu nee Gora Diagne nit ñuy jaayaat mais ndax ëppul loolu mais amul benn dëkk bu mën a sikk Gora Diagne ma yor fukki commission la ak ñeent waaye commission bi mu ci moo góor a ñoo téye commune nag xam li ñu yor xam li la ñu dénk loolu tax moo tax ñu kon góor a jërëjëf yàlla yàlla te li may wax nii bëggul ku ko wax li mu wax dëgg la man ñaari saa ma feebare rek damaa waaye moom toujours xam na ordonnance may faj góora def na loo xam ni invité na ma ci benn département ma war faa dem góora xëy si sama kër xam ne xaalis te forcément otoom la téléphoné ne ko rond bi ci yoonu yoonu Mbour tase fa ak sama nijaay mu yëkkati cinq cent mille jox parce que dafa loo xam bu koy bu ko nit di def da nga koo war di wax li la koy defal parce que kilifaam la mais su ko neexan du ko def te loolu moo ci gën a man nag yàllaa ngi dogal ndey seex laa njaaxaana lépp lu ma def jaayaat ba ngeen di ko naw def naa ko lu ko ci beneen dëkk te li may wax nii day siiw dëkk yi dañ ko dégg ci benn dëkk booy taxaw boo xam ni defuma fi loo xam ni jar naa def lii gën def kon nag su ngeen defee lii da ngeen a delloo baat xëy na seen bopp ngeen ko defal mais su leen neexee rek ko def kon jox ma cër ak sagal ma ak dimbali ma moo tax ngeen def mais di ngeen xam ne lebal ngay du mata man ku ma lebal kër ma fay yóbbu parce que nag dëgg la seen kilifa la mais bis bu ne nga gis njaboot bu toroxal kilifa mais lii ngeen def da ngeen sagal seen i donc sag boobu ngeen wax jox yal na yàlla sagal bi leen fi wax kenn mënta wax lu ko raw kon man tey ñàkk pexe moo ma maa ngi fukki ak benn yoo xam ne sama tànk teewul sama iskal waaye lii su ngeen ko organisé ma yabal moori yabal góor ak ñu ànd ak Ibra te gisuleen ma am na ñoo xam ni seen xel deetu daw du ma am lu la naqare mais seen xel deetu dal kon may ñëw taxaw parce que jullit dëkk saa bu weer ba weer bi des te dara dalu ko booy boo ma xam ne liggéeyal suñu borom dara nit jullit day feebar day wér day wéradi day am day ñàkk kon ñu sant bu baax di leen gërëm waaye cant googu nag dama koy boole communiqué bi yëpp xam ngeen sunu maam Ahmadou Ndao fii la jóge woon waa jaan gunge ko mu àgg ci naan nii ngeen ma téye noonu la ma cere ba téye dama ne comme ni cere ba ku ci jaayantee cere ba téye la caaxaan tax nga ñàkk waaye bàyyi leen xel ne seen xel dal cër bu ngeen am ci man ak yéene bu ngeen am ci man cere ba am na cër bu mel noonu wala yéene bu mel noonu parce que il faut ma seeral leen léegi rek day am ñuy génn di wax ñu jàpp ne fa nu jógee ànd na ci mais ca ku man di taxaw fii ci pencum jaay ak loo man di wax dëkk ba nga jóge la ma koy wut dinaa ko am yow di nga ko ñàkk loolu nag cër la yàlla nag lu mu la jox am na bis bu mu la koy jox waaye am na bis bu mu la koy xaj ñoo ngi ñaan suma borom bis bu ñuy ñàkk commune bi yàlla nañ ko ñàkk ci dignité ak ngor ak diine dina ñàkk yàgg yàgg nag day mas am waaye su boobaa nanu ànd ak sunu ngor ak sunu bien xam ne yàlla moo ko joxoon moo ko xañ te ko yàlla jox kan la xamuñu waaye yàlla bokk sunu njaboot parce que commune bi ñëpp laa jaboot ñëpp laa boot aw ci xàjj aw ma ci seet ma ñëw nag ci fi jëm muy élection yi ñu jëm muy élection yi doy waar élection yu garaaw élection yoo xam ay calcul la waaye kuy damee da ngay xool wala kuy mariage nga xool fa ngay tegee am as yi nga élection yi bokkul ak élection locale bokkul ak élection présidentielle élection député la élection député rek da ngaa war a xool liste da ngay xool parce que député poste la boo xam ni dan lay fal nga toog ca assemblée loo am def ci sa poste ak sa njaboot bokkul ak maire bokkul ak présidentiel parce que maire yi ki la fal da a bokk dëkk lépp loo am def ci sa poste bu ëllëgee ngi toog di la xaar boo ko laajee mu laaj présidentiel moo yilif àddina Sénégal gépp ku mu neex ak ku la naqari mais élection député nag dafa nekk loo xam ni yow mi nga xam ne yaay fab sa di ko sànni war ngaa xam li tax nga di ko sànni bu leen riir bi topp wala mbumbaay mi wala parparloo ba tax ngeen def loo xam bu ëllëg ngeen rëcc man nag yàllaa ngi dogal dugguma ci benn waaye maa ko Ibrahima yi guddi ak bëccëg liggéey yi ñëw nañ sama kër am na xam àgg nañ ci yëkkati xaalis jox ma ñu ma fexe rek bokk suñu bés parce que xam na li nga représenté ci département Thiès may leen defu parce que liste boo dugg ëllëg booy campagne poste man la jox moo tax ngay campagne ñu ngi gërëm ñëpp di dellu di leen santaat di leen gërëm di leen ñaan moo di wax na ko góor ku jël kàddu wax na ko Mor Jaxate wax na ko xale xamaat leen seen bopp bu baax gis nga ko am kilifa bokkul ko amul kilifa ku am kilifa da ngay bàyyi xel sa te dara yéesul sa kilifa di ñaan ku war soo dee ñaan am nga gàcce ma di leen ñaan ànd leen ku dal ànd leen ak yar ànd ak teggin waaye ànd leen ak xam li ngeen am ak li ngeen doon pencum jaayaan kenn waru fay jógee kenn di la yab pencum jaayaan kenn waru fay jógee kenn di la mësul am loolu nag dama leen koo ñaan ngir yàlla bu leen kenn dégg ci xuloo bu leen kenn dégg ci xeex bu leen kenn dégg ci werante ku leen tooñ baal leen ko yàlla jigéen ñii ngeen gis nag ñu soloon otos yii bind Sall wax na ko maa ngi ñoom ca ma mës a teg sama tànk teg na ko lu mu mës a bëgg defal na ko ci wàllu politique kon tey su ngeen demee ba ba seen sët taxaw fi ngeen taxawaat fii di dukkat yor ay seen otos yii mais yàlla rek moo leen mën waaye nag dama wax ni ñëpp di. bu dëggul rek force mu ñëw li yéene fii bu ko yàlla doxalee bala maa bàyyi commune bi lépp di ngeen ko xam xaw ma suba la nag ma ginnaaw suba la dogu naa bala maa bàyyi commune bii lépp lu ngeen bëgg dina ko am suuf xasee nag jeex na lu dikkee rek baax kon ñu santaan yàlla bu baax di leen sant di leen jaajëfal sant presse bi bu baax di sant directeur Alpha Sarr ndax Alpha muy guddi muy bëccëg lii da koo dégg rek yabal élément mu ñëw jël ko te fii lu toll nii képp koo xam ne xew la nga di woo presse da parce que li ngeen di def nii tey balaa suba ca takkusaan mu wër Sénégal waaye nag moom fullaam ak faydaam ak xam li mu doon loolu moo tax lépp lu mu dégg ci ma rek yëkkati fam ndaw bu mënul dem fam ndaw yo ami ko taala maa ngi lay ñaan nga joxal ma Alpha Sarr sama nuyoo ci moom ginnaaw bu ma nuyoo nuyoo Serigne Thiénaba ba Baye Assane Seck xalifa général di nuyu waa Thiénaba yëpp di nuyu waa ñi sant Seck santaat sama militant yi nekk di leen gërëm bu baax seen taxawaay mat na ci man yëg naa ko am na ci ñoo xam ne danoo am ñeewante ci man te loolu dañu wax ne loolu la defal nga ni ma ma ndox passé loolu baax rek moo tax ñu ko def ak delloo njukkal jaayaan parce que maam Ahmadou Ndaak bi muy nekk jaayaan booba tàng na lool métti na lool mais mu jóge fi cere jóge jaayaan dem cere ba ba am ndam mais loolu lu ko ëpp amul loolu lépp maa cere ba delloo na ma ko du ma mën ñu sant leen gërëm leen di sant ñi fi teew ñëpp rek xam ne daal guddi na dana duuf ci nag yëpp xajaroon ci ci cin li bu fekkee wéral naa dinaa leen waxal tey loo xam